gannaaw loolu ñu ngi nuyu al imam ratib alhaaji as ma demba jàpp ziyaar ko ñaanal ko yàlla ak mbooleem aima yi nga xam ni ñooy jàppalanteek moom ci liggéey bi nuyu lañ bindoon ci affiche yi nga xam ni jàllale nañ ko waaye léeg-léeg mbir yi day génn ci sa ci sa coobare ñu ngi koy jéggalu ñëpp su ko defee tey li ñu fi dajale incha allah mooy coordination musulmane bu Grand Yoff ak li ko wër ñoom ñoo nekk ci bopp jotaay bii ànd ceeg mbokk yi nga xam ni ñoo yeewoo fii ci HLM Patte d'Oie jubluwaay jotaay bi mooy xam ngeen ni coordination bi ay gox la ëmb yoo xam ni ay mbokki jullit yuy xencu alquran ak sunna ñoom ñoo fa nekk di góorgóorlu ci seen diine di liggéey ci toolu daaw bi ay euh, programme yoo xam ni dañ koy tegal seen bopp mu bokk ci li nga xam ni mooy ay ziyaaraat ci gox yi nga xam ni moom moo ko ëmb Grand Yoff Konachab Castor ak yeneen yu dul ñoom HLM Patte waa tey moom mooy ki nga xam ni moo aye ci ziyaaraat yooyu nga xam ni dañ koy def loola waral ñu amal jotaay bi li jubluwaay bi nag mooy mbokk yi nga xam ni ñoo dëkkee ci gox yooyu te soronte wuñu yàlla def ñu gën a xamante bu ñu xamantee gën a jàppante mun a jàppalante ci liggéey bi nga xam ni moom la ñu borom bi subhanahu wa taala dénk entre guillemets muy liggéey daaw bi ñu jàppalante si loolu mooy li nga xam ne moom mooy jubluwaay bi loolu nag ñu ngi ciy woo mbooleem mbokk jullit bi nga xamante ni yaa ngi ci gox yi ma wax nga bàyyi sawaar xar sa tànk tubay ci liggéey bi nga xam ni moom la ñuy xencoo liggéey moo xam ca gox ba nga nekk wala en général ci coordination bi yëpp ci teewee ay suuraam ci jàppalanteeg mbokk yi ci ay liggéey moo xam commission yi nga xam ni moo ko composé muy finance di organisation di commission commission sociale yooyu képp koo xam ni sentir nga sa bopp ci mën a liggéeyal borom bi subhaanahu wa taala ci yooyu la lay woo mooy nga intégré ci commission yooyu ngir mën a jàppalanteeg mbokk yi ci liggéey bi incha allah daal loolu mooy li nga xam ne bëggoon nañ koo jàllale bu ko defee bu ñu weesoo loolu dañu dugg incha allah ci waxtaan wi nga xam ne moom moo ñu fi dajale tey waxtaan wi nag di thème bu ama am solo boo xamante ni thème bu ñu tànn la ci jamono muy mutabaatu nabi sallallahu alayhi wa sallam hidayatun wa najat topp bi nga xam ni moom la ñuy topp yonent bi alayhi salatu wa salaam lan la ñu mën a indil ci wàllu njub ak ci wàllu texe fii ci àdduna ak fa nga xam ni moom lañ jëm muy al axira loolu nag ki ñu koy defal mooy sunu cheikh sunu ustaaz sunu wayjur al ustaaz Mor Kebe kenn dootu ko présenté xafisahullahu wa raa ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala dëgëral ko ba lépp li nga xam ni indil nañu ko ngir baaxee ñu ko yàlla borom bi subhanahu wa taala may ñu xol ak nopp yoo xam ni mooy taataan loolu ba buñ ci jógee ñun ñëpp mun a jëriñu ci wax yooyu nga xamante ni mi ñu koy waaj a defaral ñi ngi koy ñaanal borom bi subhanahu wa taala yàlla borom bi subhanahu wa taala dëgëral ko kon duñu guddal dañuy taxaw foofu kàddu gi daal di koy bàyyi mu dugg ci tem yi incha allah kon yaa ustaz fa yatafaddal mashkura طيب الحمد لله رب صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزلنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله نيجي زيارة نيب دي لوكيل نيب دي أم بكتك جتاجي دي سبحانه وتعالى مدك باركه comme na ko muqaddim bi waxee suñu rakk Mouhamadul Amin liggéey bi fii wax dëgg yàlla ci gox yi lu xaw a yàgg la ci wàllu daawatu ahlu sunna wal jamaa jeunes yi nga xamante ne ñoo nekkoon ci quartier yi fii amoon trop organisation yàlla te teeloon ñu boole ak ñoom ñu daan jàppalante ak ñoom ci wàllu daawa dans les années quatre-vingt-dix fin quatre-vingt-dix yi jëm deux mille boobu demaguñ sax jàngi bokk nañ ci bërëb yi njëkk a commencé jàngale xam-xam lu jëm ci zone Grand Yoff bi ak mbokk yu góor boobu ngóor si xale bu ndaw la danañ ñëw toog fa di nelaw rek yàlla def ñu nekkoon ci loolu ba dinañ buñ musaan ñëw vacance sax jóge jóge jóge jóge université ñëw vacance sax dañ daan continuer cours yi mu jaraloon leen ñu luye woon benn bërëb fële ci Grand Yoff tuddee woon ko markaz benn bërëb boobu nañ ko luy woon uniquement pour jàng ak yëngatu ci walu daaw bi ak mbokk yi am fu ñuy daje di cotiser di ko fay daan jaral leen sax ñuy jël ay waraga di di di financer jënd waraga temps yooyu ay baabamaal ak ay salama xew <laughs> dañ koy cornet di jox mbokk yi ñu yóbbu seen kër yi pour di jaay yóbbu seen koñ kenn ku nekk di jaay bu ñëwee balaa buñ jàngee ba pare wala balaa ñu jàng gis kaay dajale cent francs deux cent ku nekk di verser ñuy dajale kase di ñu daan def ci waxtaan yeeg duruus yi dañ ko daan jël def ci coordination des musulmans de Grand Yoff la yaakaar naa la woon dañ ko daan jël euh, di ko abale xam nga dañ ko doon abale xam dañ ko doon loué waaye daal dañ daan ñëw boo ñëwee jël déglu boo demee après dañoo ñëw delloo soit cassette yi temps cassette la woon loolu nekkoon loo xamante ni wax dëgg yàlla xol la te juróon na résultat yu am solo ndax ànd boobu noonu yoonu yàlla dafa am solo inna allaha yuhibbu alladina yuqaatiluuna fi sabilihi saffan ka annahum bunyaanun marsuus mooy àndandoo nekk ci yoonu yàlla jàppalante nekk comme ay sàppe roofaloo dafa baax yàlla daf ko bëgg ndax dafay dëgëral taxawaay te loolu jamono jooju amoon na miinante bi nekk am na ci ñoo xam ne ba léegi ci lañ doxee nekk ay mbokk yoo xam ni foo leen seen duñu tàqalikoo comme ñu bokk deret ci jamono boobu ànd njëkk boobu am na ay relation yu ci juddoo woon yoo xam ne ba léegi nii dafa continuer kon loolu bu fekkee dem nañ ba jamono ñu xaw ci sentir tuuti ak taxaw war nañ ko jéem a dekkalaat loolu laay ñaax mbokk yi nga xamante ne ñoo fi dëkk te ñun ñëpp suñu intere la ndax nit moom boo bëggee boo nekkee ci lu baax jamono ñu toll nii ak suñu société yi ni mu tëddee bokk na ci li doon na wax ne yàlla defalul ndaw li góorgóor ci yoonu njub ginnaaw bi ma amee istiqaama am njub xéewal gën a rëy tàggatal ko nit ku baax koo xam ni daf koy jàppale ci yoon alxuraan ak sunna muy ku muy fréquenté koo xam da koy dimbali ci loolu ndax loolu da koy nekk ci biir ay mbokk jullitam yi mu bokkal lim gëm dina dindi ci moom benn yëg tumuranke bu muy yëg ndax société yi tey nekk fi ci njub nekk fi ci dëgg yëg ci tumuranke dafa yomb lool te tumuranke ci mbir dafa nit ki bul yéemu ci ñi bëri ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo sànq dañoo wax naan laa taftaru bi kasarati lxaalikin ñi sànku ñi alku bu seen bari te bokkuloo ci bu mu tax nga naaw waaye tamit laa tastawxisu bi qillati saalikin yoon njub boo ci nekkee tamit bul yëg wéet ak néew doole ci ne ñi nga àndal dañoo néew donte benn nit moo ci nekk ak yow xamal ne li mooy dëgg nga continuer nekk ci waaye ànd bi ensemble di góorgóorlu di liggéey dafa am solo moo tax yàlla ne wal takun minkum ummatun yad'una ila alxayr wa yamuruna bilmaaruf wa yanhawna anil munkar dañuy faral di baamu aaya boobu di wax ci benn xeetu tekkin buñ koy tekki ci ne wal takun minkum umma mën na bañ a nekk ne na ñenn ci yéen waaye nekk leen la wax wal takun minkum umma min ji dafay nekk bayaaniya mooy na ngeen nekk mooy kuunu ummatan na ngeen nekk ab xeet nangeen def bloc na ngeen nekk mbooloo mooy constitué wu leen en groupe bu ko defee ngeen di digle lu baax di tere lu bon li ñuy istinaas si ni ko yàlla waxee noonu digaluñu rek ne digle lu baax tere leen lu bon mais avant mu ñuy wax ni ñuy digle lu baax tere lu bon daf ne nañ nekk mbooloo ba pare nañ ko def en groupe mooy ne kon liggéey bu mel noonu bu ñu ko bëggee def ci biir société groupe moo koy def du liggéeyu individu nekkul loo xam ne benn nit da cee wét rek di ko def mbooloo ñoo koy def kenn ku nekk fa nga mënee nga jàpp fa moo tax yàlla waxoon yonent bi ne ko huwa alladi ayyadaka bi nasrihi wa bil muminin yàlla moo la dimbalee ndimbalam ak ñim la booleel muy saxaaba yi nga nekkaloon dimbal bi mu ko dimbalee ñooñu mooy li muy def liggéey bu yaatu la ay cër yu bari la ay responsabilités yu bari la mënta nekk fépp te féete fépp yàlla boole ko ay nit yoo xam ne ñoom lay jël teg leen ci yooyu ñu taxawee ko ci loolu la liggéeyu lislaam di yembee kon loolu ñu ngi ciy ñaax suñu bopp di ci ñaax mbokk yi ñu gën ci góorgóorlu yàlla na yàlla subhanahu wa taala nangu yàlla na yàlla doy tawfiq leneen li ci des mooy li nga xam ne wax nañ ko ci thème bi te mbokk yi sàkk woon buñ ñëwee ñu waxtaan ci mooy wax ci mutaabaatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hidayatul wa najaatu di wax ne topp yonente bi alayhi salatu wasalaam njub la te mucc la léeg-léeg da ngay wax sax ne yenn seen yi jaaruwul woon sax ñuy toog di ci nekk di ci wax ak waxaat ndax dafa nekk lu évident loo xam ne jullit bu gëm yàlla gëm yonent bi alayhi salatu wasalaam ne yàlla moo ko yebal doyloo lislaam mu nekk sa diine dégg lu mel noonu warul woon nekk problème ci yow ci ne topp yonentu yàlla bi alayhi salatu wasalaam roy ko def ko muy sa royuwaay nga jële ci moom sa diine loolu mooy sa mucc loolu mooy sa njub mooy sa mbaax waaye li tax ñuy dem bay soxla thème bu mel noonu di ñëw di ñëwaat mooy topp googu dafa am problème bu baree bëri bëri bëri bu mu am ci jullit ñi taxawaay buñ ci war a am nam waroon mel ci ñoom melatul ci ñoom noonu te loolu mbir yu bari ñoom ñoo ko waral bokk na ci mbir yooyu ci ci gën a am solo réer xam-xam di néew ci nit ñi xam-xam di néew ci nit ñi ñàkk xam nekk ci ñoom boole boog léeg-léeg xel ak bëgg sax lu baax xëy na waaye bu fi xam-xam bi nekkulee nga gis nit ñi bàyyi lañ waroon def ci lu leen di amal njariñ ci seen diine nekk ci yeneen yoo xam ne seen jamono seen kàttan seen doole seen am-am ak lépp ci lañ koy def te fekk ni bari lu leen njariñ qul hal nunabbi'ukum bil axsarina amala الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا بوكو دافا نيت كي نيك تي لولو ياقتي لو بري بري تي اي جيفم تي فاتني امالو كو نري كون ريل بوغو موم موكاي وارال نياك خام لو مو غنا تسارو تي نيت ني تي يونتو عليه الصلاه والسلام وخون ني ان من علامات الساعه ان ترفع العلم ويثبت الجهل وخون ناني بوكو نا تي ماندارغي ماندارغي بي سي بنت اك جيغيم موي خام خام داي جوك خام خام داي نيو تي نيت réer ak ñàkk xam bari loolu ci nit ñi bu fekkee loolu am na nag nga dem ba seetlu ko suñ société yi dégg nit ñi ñuy wax lislaam lislaam nekk ay jullit waaye xam-xam bi tax nit ki mën a ràññetle xam fu muy teg tànkam newul ci nit ñi léegi bu boobaa dina am nit ñoo xam ni pare nañ pour profiter ci ñàkk xam boobu exploiter loolu pour tasaare ak réer ci nit ñi pour gën a mën a jariñoo nit ñi ndax nit ñi bu ñuy seet dara ci kaw ñàkk xam réer googu nekk ci ñoom manipuler leen dafay yomb ñooñ di leen manipuler nag manipuler wuñ leen pour njariñu ña ñuy manipuler mais pour jariñoo leen la léegi nag loolu noonu réalité boobu ba léegi la nit ñi mënta concevoir lañ mënta nangu ndax léeg-léeg dañuy wax ne nax nit ki moo gën a yomb nga fekk ñu koy nax nga ne ko pëkk pëkk ba mu xool na nga ne ko ñu ngi lay nax mu ne la waaw léeg-léeg yow nax ko sax mooy gën a yomb ci yow que nga ñëw di ko yee ci nax yuñ koy nax ndax du la gëm du ko nangu loolu nag moo tax kon wax ji bari lool laayee biir bi ñu continuer li ci nekk xam ne njub ci loxo yàlla la nekk li suñu warugar mooy nasiha ak wax ak jottali kàddu yàlla comme na ko yonent yi doon def ndax loolu rek moom moo fi nekk moo fi des ci liggéey bu ñu mën a def yàlla moom mooy jottali mbiram mais li ñuy gis ci suñu société yi metti na ci xol lool ci tañax tañax ji fi nekk ci wàllu diine ak làmbatu ji fi nekk ci wàllu diine ak euh, yu bari yooyu seetlu ci phénomène suñu wàllu yoo xam ne du la wan lu dul gën la wan rek ne la nit ñi njub gi fi yonent yàlla bi alayhi salatu wasallam bàyyi woon réere nañ sori nañ ko lool ci lu ne mën nañ leen ca woo ñu wuyu ji ci ba mu des kaay leen roy kaay leen roy yonent yàlla bi alayhi salatu wasalam boo leen ko waxee day mel na sax da leen di dàq duñ la déglu te kenn ku ci nekk mi ngi fëgg dënnam di manifester mbëggam ak fu fu ko yonent bi ak di exagéré ci loolu lu nañu koy def pour rek wane seen ku bëgg guñ ko bëgg mais folklore boobu dañu fàtte ne moo yàq diine yi jiitu suñu diine ñun l'islam soxlawul loolu ngumbaay boobu folklore boobu symbolisme boobu l'islam soxlawu nasraniya lan moo ko yàq xaabaabal ci seen yonent يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل top ay nit yo xamni ni soi-disant ay kilifa lañ ci dina yoy ñu jël nit ñi tek leen ci yoon yo xamni ak réer bu bu bér la jëfëndiko bëgg buñ bëgg yonent yàlla ba yàlla yebalon ci dina jojju du isa ibn maryam ñu jëfëndiko bëgg googu ba weesale ko ak dayom jël ko diko yalla diko def doomu yàlla ak jël dina ja sànk ko yàq enseignement bi fi isa ibn maryam bàyyi woon ak njàngale ak dénkaane yim fi bàyyi woon topp ay symbolisme yoo xamante ni ci ay nit lay jaar ñu ñuy jël def leen ay kilifa ñu sol ay yére yu mag ñëw taxaw ci kanamu nit ñi accaparé xelu nit ñi ak diine ji di ko jëriñoo fekk ne jëriñu nit ñi loolu dem ba jur lan li ñu gis tey ci société occidentale bi nga xam ne lépp luy diine tey dafa raxasu ba set ci ñoom parce que échec ñooñu ñuy tuddee ay kilifa yooyu yàlla doon wax ne inna kathira min al ahbari wal wal ruhbani yaakuluna amwal annaasi bil batil yasudduuna an sabilillah wa yaakuluna amwal annaas mooy ñooñu kilifa yooyu nga xam ne ñaari critère la leen yàlla melal benn bi mooy dañuy lekk alali nit ñi di exploiter nit ñi seenu ñàkk xam pour di jariñoo seen i alal beneen bi ci des te moo gën a garaaw mooy di gàllankoor nit ñi ba duñ tegu ci njub gi yàlla bëgg ñu nekk ci ki nga xamante ne bi dañ dafa yor tiituru liste tuy tiituru diine ñu tuddee ko ne kii kilifa la ci diine sàngam ba jox ko benn nomination kooku la yàlla wax ne gàllankoor la ci dina jooju ngir nit ñi topp yoonu yàlla ndax mooy dox diggante nit ñi ak dëkk léegi bu fekkente ne yàlla wax nañu loolu ci diine yooyu jàlloon tudd al ahbaar wa rohbaan muy kilifa yi yahud yi ñii di kilifay nasaraan yi loolu daf ñu ko wax ngir ñu bàyyi xel ci bañ a am ñu mel noonu itam ci biir lislaam ñoo xam ne dañuy mujj di gàllankoor nit ñi pour ñu topp njub di jariño nit ñi di def yaquluna an nas bi yàlla wax ne di lek alal nit ñi te liñ koy lek lépp ci kaw nen la bi baaxil ci la tegu lolu jamono ci toll ni mën nga wax ni moy probleme deug deug l'islam waye nit ñi ba legi dañu nelaw dañ yaakaar diine affaire nit la diine mbiru yàlla la sa digganteeg sa borom bo déwé ba dajé sa borom ngay xamné sa digganteeg sa borom la kenn moy sa kilifa ci sa diine muy yàlla موضح يرنتب عليه الصلاة والسلام يالله أنا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا ولا كذا لن موضح مدن دينتي ملنون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما لن موضح مدن وفي ملنون يجب ngir yalla xamal nit ñi ne leen dama ko taamu ci sama diine ji jox ko ko waaye na leen ko jàngal ba mu leer ba ngeen xam ko jële ko ci moom roy ko ci waaye du moom mooy seen jubluwaay du moom mooy seen wéeruwaay du moom moom moom diine ji mbiru suñu borom la yàlla arafta ko ci ba tàyyi naan ko afa allahu anka lima adinta lahum naan ka laysa laka min al amri shay'un aw yatuuba alayhim aw yuadibahum fa innahum zalimun Yalla diko Arab ci alquran muy alquran bi ñuy jàng ba suñu bis bi mom yonent diko yalla joxon do def ngir lan ngir ñu baña joom ci mbiram baña joom ci mbiru diine ni ñi concevoir diine loolu yàlla bañaloon yonentam bi ba mu xam ko ba tax mu dan wacce bopam nan bu len dima ma comme ni ñu yëkkatee woon isa ibn maryam jaamu yalla la ndawul yalla la de daan wax kon yonentu yalla dan wax nan jaamu yalla la ndawu yalla la di ko répété ci kanamu saxaaba yi nit di ko wax ne ko macha allah wa shita mu ne ko ajaaltani lillahi niddan qul macha allah waxda bu soobe yàlla soof la ndax dañ may bokkaale yàlla waxal bu soobe yàlla lool yëpp lan moo taxoon yonent bi alayhi salatu wasallam di ko def ngir bañ nit ñi jël ko teg ko place bi yàlla ba mom mi yàlla yabaloon ni ci diine ji ngir mu ñëw jàngal nit ñi teg leen ci siratul mustaqim wëlbatiku waat moom jëmmam ji nekkaat gàllankoor ci njub googu ndax nit day ñëw ne day woote ci lu baax nit ñi jël ko moom jëflanteeg moom noo xam ni moom jëmmam ji day mujjaat nekk gàllankoor ci seen jub nekkaat sabab ci seenu réer léegi nga gis ne kon yu mel noonu boo koy seetlu suñu société yi muy ay feebar yu xóota xóota xóot yoo xam ci pas-pas la aju nekk ci biir xolu nit ñi ay nit di ko martali guddeeg bëccëg di ko gën a daj muy gën a sori buñ déggee nga ci yenn nit ñi sax ñu lay xasaka di la wax wax nga sentir benn haine bu rëy bu ñuy am ci yow loolu pour mu denc ci nit ñi day jafe ndax ñi nga xam ne ñoom ñooy def loolu am discours boobu dañu am technique bu ñu am ci mën na laal sentiment wu nit ñi ndax appartenance muy bokk ci dara dafa nekk lu fort ci nit dañoo fexe ba sénégalais yi ñu jël def leen ci wàllu diine ñu def ko mbiru parparloo parparloo day ñëgloo nit foofu la ñu réussir takk gi ñu leen takk ci yii ñu nekk ba kenn mënul tax ñu bàyyi ko looy wax luñ jàpp sax dafa safaanoog loolu nga dégg ñu tàmbali laa ŋaññi ak di la dénigré duñ sax ubbi seen i bëtu xel déglu ba xam li ngay wax lu cohérent la lu raisonnable la luñ war a jëlal déet déedéet li ñuy xool mooy ne dafa nekk lu opposé woog li ñu fas mu metti ci ñoom lool ñu dégg ko wala ñu déglu ko mënul nekk dañ jàpp nañ leen di agressé ak wax ji lu mu tegu tegu tegu tegu ci lu leer duñ ko pare pour jël gaay yi tamit nga xam ne ñoom ñoo maîtriser mbir moomu yor ko mu nekk ci seen i loxo ñu yeewu lool yor ay xel yu rëy yoo xam ne xam nañ ñuy fexe ba gën di yeew nit ñi di leen gën a jekku fexe ba déstabiliser décrédibiliser ñi nga xam ne ñoo war a yee nit ñi mu ñu tuddee ustaas yi jàng ji woon ñëw ragal loo leen population bi di leen tuumaal di wax ci ñoom di jéem a yàq seen der fu ñu toll ñi ngi jéem a xool nu ñu tiitale nit ñi ci seen mbir ba duñ leen déglu am seen i waxkati bopp yoo xam ne fu ñu toll diw diw diw diw diw diw bu dégg ba cëf diw rek diina jëpp diw doo dégg yàlla doo dégg yonent bi wala boog dañ koy wax ba échauffé ko gaa yi diw ñëw yàlla pour tàngal gaa yi yonent bi pour tàngal gaa yi waaye diw mooy objectif te dee ko seetlu ci seen i jataay même buñ toogoon ne dañuy dajaloo ne dañuy màggal yonent bi dañuy nangam waxtaan ci rasulullah déglul ba pare nga jug dem ndax li nga fa déglu tax nga xam yonent bi doo ko xam mukk lu ñu lay wax ci moom ci diw lañ koy jaarale pas pour màggalee ko ko moom yonent bi mais pour màggalee ko diw moom pour wan ne moo wax ci moom lu kenn waxul moo xam ci moom lu kenn xamul moo nangam ci moom moo nangam ci moom kon léegi finalement kan la ñuy màggal diw yonent bi mais diw pièce boobu lañu jël tëj ci sénégalais yi tëje tëje tëje tëj tey ba tax wàllu liggéeyal l'islam liggéeyal daawa nekk liggéey bu metti waaye nekk lu noble nekk lu war képp ku yàlla may xam-xam nga góorgóorlu ci loolu dinañ yàq sa der dinañ la menacer dañ la nangam waaye maa yuqaalu laka illa ma qad qila li rusuli min qablik yonent bi la yàlla wax ne ko duñ la wax lu ñu waxul yonent yi la fi jiitu woon kon li fi sës mooy muñ dimbali koo yàlla xam ne yàlla moom bu ko soobee mbiram fu ko soob dina ko fa àggale kon waxtaan ci topp yonent yàlla bi alayhi salatu wasalaam waxtaan wu ñor la wu ñu war a waxtaane wat sénégal ndax yàqute gi nekk ci diine yépp mi ngi jóge ci bàyyi topp gañ ko waroon topp toppi leneen toppi yeneen i yoon toppi ñeneen i nit yoo xam ne cër bi nga leen di jox ak dayoo bi nga leen di jox joxoo ko yonent yàlla bi fiñ la àgg yonent yàlla bi àggu la buñ la waxee ay mbiram fa muy àgg ci sa xol yëngal gëm lay yëngal ak bëgg gi gi koy bëgg yonent yàlla bi àggu léegi loolu problème la ci diine wala du problème nit sa diine li koy conditionné mooy sax pas-pas bi nekk ci sa xol loolu mooy loolu mooy conditionné diine nit bu ñu waxee ci topp yonente bi alayhi salatu wasalaam liñ ci nam ci mutaabaa boobu mooy muwafaqatu nabi salallahu alayhi wa sallam qasdan wa fi'lan mooy dëppoog yonente bi alayhi salatu wasalaam ci li muy def la nga ko tax a def ak na mu ko defee loolu lañ ci nam موتاخ دا نان واخ ان تفعل ما فعل من اجل انه فعل على الوجه الذي فعله موي غا ديف لي يونت يالا بي عليه الصلاه والسلام ديف ديف كو نختي موم موكو ديف بنين بي موي غا ديفه كو نيمو على الوجه الذي فعل ديفه كو نيمو كو ديف لو بري لا تي دو واي لي نجهك جامو يالا بو مو ديف بودي جولي لا ديفال جولي بودي كور لا ديفال bu dee tawaaf la defal tawaaf jamono ba nga koy def nga def ko parce que moom moo ko def mooy yonent yàlla moom moo def nga roy ko loolu nekk sa jubluwaay te jubluwaay boobu dafay jeexital ndax innama al amalu bin niyat wa innama li kulli imri ma nawa nit sa def li nga ci yéene loolu nga ci am beneen mbir bi ci des mooy ala al wajhi alladi faala ni mu ko defee nga defee ko noonu bu dee da koo def ci bërëb te ñu xam ni bërëb ba mu ko defee jubluwaay la ci jëf bu boobaa da nga koy def ci bërëb boobu bu dee da nga ko def ci waxtu te waxtu wa nekk jubluwaay ci jëf ji nga defee ko ci waxtu woowu shahru ramadan alladi unzila fihi alquran mu waxaat ne fa man shahida minkum ne waat ak shahr ñu xam ne kon weer la ci la yàlla yoonal jaamu yàlla boobu da ngay woor weeru koor def ko ci weer woowu mu ko woor da ngay aj màkk fan lañ ko defee ñu def ko ci almashairul haram dem defee ji ko màkka mina muzdalifa arafa nga dem foofu defee ji ko fa kon ndax bërëb bi dafa lëkkaloog jaamu yàlla kon roy gi loolu moom moo ci aju loolu mooy ci wàllu jëf ak ay li jëm ci wàllu wax wax ji yonente bi alayhi salatu wasalaam di wax topp ko ci mooy nga xool wax ja la mu waral ci lu ñu war a def wala lu ñu war a bàyyi nga ko ci loolu ca niveau ba mu ko warale bu dee santaane la buy waral nga jë jëfee ndax dafa war bu dee luy xemmeemal nit ñi àggul ci war waaye lu gën la nga def ci la nga mën bu dee lu dagan la itam nga jàpp ne lii lu dagan la bu dee lu muy moytandikuloo nit ñi tamit noonu la moytandikuloo nit ñi tere leen nangam imma mu xaram nga bàyyi mu nekk lu ñu sib nga lu moytandiku ndax baaxul wala mu nekk lu dagan ba léegi loolu loolu la ñuy tuddee mu mutaabaatu nabi sallallahu alayhi wa sallam mu des ne itam ba léegi bu ñu waxee ci wàllu jëfam loo xam ne du waxam mais jëfam la nekul lu explicit lu leer comme ni wax di leeree waaye li cosaan ci yonente bi alayhi salatu wasalam mooy roy ko ci ay jëfam loolu mooy cosaan ndax laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana la yàlla wax suñu royuwaay la bu ñuy roy boo xam ne ci moom la ñuy jëlee diineem suñu diine wa in tutiuhu tahtadu wa ma ala rasuli illa albalaagu almubin wa ma aataakum rasulu faxuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu lim ñuy jox yàlla moo nañu nañ ko jël lim ñu tere ñu bàyyi ko kon lii cosaan ci li muy def moo ñu sukkandiku ci xam ne luñ koy royee la ba gis firnde muy wane ni lii lu ko yàlla jagleel la ci lu ko yàlla jagleel lu war ci moom wala lu dagan ci moom wala lu xaram ci moom lu war ci moom dañ ci doon tudd lu mel ne naafile guddi ak yenn xeetu naafile yi nga xam da ko daan def te soxnaam sa waxoon ne kaana alayhi salatu wasalaam ida salla salatan sabbataha bu musaana def benn julli naafila dootu ko sañ a bàyyi da koy continuer lolu xusuusi la bu ko yàlla defaloon motax ñaar ñaari rakk yi dan julli ginaaw takusan mune moy yim dan julli la ta takusan benn bis am lu ko galan koor ba munu ko julli la ta takusan bim julle takusan mu fay ko bim mu ko fayee mënatu ko bàyyi mu continuer di ko julli alayhi salatu wassalam lolu loolooy sabab bi wa illaa dafa tere won ñu julli fofu naafila boo xam naafila mutlaqa la wala mu nekk loo xamante ni lu ko yàlla daganal la lu mel ne lu ëpp ñeenti soxna yi ko yàlla daganaloon te loolu nekk lu xaram ci jullit ñi mu leeral loolu leen loolu dañ naan liy jagleel la bu ko yàlla jagleel ci mbiram kenn du ko ci roy wala mu nekk loo xamante ni lu yàlla xaraamal ci moom la te fekk ne dagal la ci ñun lu mel ne azaka azaka yi ñu daan indi ci moom daf daan wax naan laa taxillu li muhammad wala li ali muhammad fa innaha awsaaxu nnaas daf daan wax naan daganul ñeel ma alayhi salatu wasalaam daganul ñeel sama njaboot mooy asaka bi ñu fi indi woon lay ragal mu bokk ci kon bul ko lekk alayhi salaatu wasalaam loolu nekk li nga xamante ni moom la ñuy tuddee roy ak topp muy duggaat ci tamit ba léegi bàyyi bi muy bàyyi jëf li ñu tuddee ak sunnatu tarkiya mooy bu bàyyee dara ko lu mel ne dañ koy jëlee mbët jox ko ko lekk ko ñu ne ko a xaraamun qaala la innaha laysat bi ardi qawmi fa ajiduni aaquha ولانه ليس بارض قومي فاجدوني اعاقبه دوخ ديغا ماك مانا جيف بام بايو دا ني خول لولو لان لا دا دال نا بغا جيف كوم نكو عائشة واخي ني يونت با عليه الصلاه والسلام دا بغا جيف بن جيف واي دا كوي باي ني راغال مو جيف كو ني ني توي راي كو لا فراتال لي وارال ني وار كو مانا ديف ميغي في واي غير ديف كو دا ديغنتي ماك موم لوكو كو امبيسي ndax jaamu yalla la ju mag juy jegal nit ñi yàlla di leen dugal aljanna mu bëggoon di ko def guddi fondement yu njëkk ya ndax bi ko Quraysh waxaatee ginnaaw bu benn inondation amee woon Makka ba am lu mu yàq ci kaaba bi ñu voté benn budget tabax tey posé ngay xool conséquences yi muy am ëllëg loolu mooy fiq bu nit ki bëggee daaw di liggéey l'islam da cee war a roy yonente bi alayhi salatu wasalaam daan na bàyyi lu bëri ci ay mbir yoo xam ne yu baax la yu kawe la du ñàkk fit de déedéet waaye ngir xool conséquences yi muy jur ëllëg ndax jëf yooyu l'islam terew la digga santu la ko mu nekk ay finalité yoo xam ne jëmmi def ko rek moom mooy yitteel l'islam déedéet dafa am jëf yoo xam ne da la koy digal ngir la muy jur ci njariñ bu amee lu tax njariñ loolu newatu fa soo kon soo ko defee sa somatu loraange fay juddoo mu ne la bàyyi loolu moo war a nekk fiqu daaw léegi bu fekkente ni xool nga ne bàyyi na ko te daa fekk loolu dox diggante ma moom bu demee ba loolu teggee ko des na mën a dellu ci jëf ba bu mënee nekk loolu moo ko empêché woon moo tax ci jamono omar ñu sañ sañ a ñëwaat di taxawal julli guddi beneen ba ci des mooy mu nekk ne da ko bàyyi nekkul ne xëy na dafa am lu ko ko empêché waaye lu ko waral moo fi nekkul woon maa lañ tuddee idamul muqtadi mooy lu waral mu def ko moo fi nekkul woon ci jamonoom alayhi salatu wasalam moo tax def ko lu mel ne dajale alquran bi mu demee ba jóge fi diine ji mat na alquran mat na dara dootu ci yokkati abubakar radiallahu anhu seetlu ne ñi mokkal ñu ngi tàmbali di faatu ci xare yi mën nañ dem ba am problème pour dajale ko nañ ko dajale waxtaan ceeg omar ñu waxtaan ak zayd ibne sabit ñu daal di dajale alquran bu fekkee muqtadi bi am na ci ginnaaw yonente bi alayhi salatu wasalam li waral ñu def jëf boobu mën nañ ko ci def bu fekkee ne loolu ko waral nekkul ne suñu gàttañ lu moo ko jur loolu mooy charte bi yooyu nag comprendre ko dina tax nit ki xàmmee luy bidaa ak lu dul bidaa mais léeg-léeg ñi faral di jaxase ci buntu bidaa di wax ci ay bida yu rafet ak yooyu buñ duggee ci genre mbir yu mel nii mooy lu yonent bi bàyyi dafa ko nga ñëw sañ koo def ci ginnaawam dañuy jël lépp boole leen ci benn cin ndax duñu mën a def distinction le mbir yooyu xam benn bu nekk luy tolluwaayam ci lislaam ak benn bu nekk lan lañ ko war a àtte bu fekkente ni nag lu war a tax mu def ko mi ngi fi ci jamono dara empêché ko ba noppi gis nañ mu def ko mu bàyyi ko boobaa loola bàyyi ko sunna la bàyyi ko ni mu ko bàyyee sunna lay daal di doon ñenn ñi nag dañuy ñëw fekk loolu mu bàyyi ginnaaw bu lu war a tax mën koo def nekkee fi ci jamonoom te gisuñu lenn lu ko ko tere woon mën a def ànd ak ñaari mbir yooyu yëpp ñu gis ne yonente bi alayhi salaam dund na fi ba jóge fi defu ko saxaaba yi defuñu ko da gis ku ñëw moom di ko def ba noppi di wane ne li muy def sunna la li mooy problème mu jum jamono gi ñu nekk mooy li abdullah ibn abbas doon wax dinañ dem ba jamono nit ñi di dundal bidaa muy sos ci diine li faat sunna di rey sunna ak mu jot ñu sos ci bidaa lu dul jeex rey ci sunna lu lu ñu toll wala lu ko ëpp ba nit ñi miin bidaa ba mu jigi bu nit ci bàyyee benn bidaa ñu ne ko bàyyi nga sunna abdullah ibn abbas li la waxoon te loolu dégg-déggam dong moo ko mayoon mu mënoon xam ne nit ñi ci loolu lañ jëm allahul mustaan ci li nga xam ne war nañ koo xool ci topp googu nga xamante dañ koy topp yonente bi alayhi salatu wasalaam mooy yiñ ci war a bàyyi xel ñu koy tuddee ay dawaabit bokk na ci mooy jëm cee tënku ci digg doomu ndax nit ñi ñaar lañ ci topp yonente bi alayhi salatu wasalaam ñenn ñi seytaane nax na leen ba ñu wan ginnaaw loolu taamu ji leneen lu dul topp yonente bi alayhi salatu wasalaam te bis bu ne ngay seede ne yow yonente bi yàlla la yàlla moo ko yebal waaye seytaane puus leen ci topp yeneen mbir bàyyi yonente yàlla bi alayhi salatu wasalaam wa ida qila lahum تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا ولا ما وجدنا عليه آبانا سابوني وحي كايلن توك كايلن توك مغني دللاي توك أمنا لنن لما بس لي نانغم نعم نون دلن شيطان نعم نرم توفي جلول بلن كورل بكدس لي الإمام ابن القيم موقع وقتي إغاثة اللحفان بلن كورل بكدس mooy ñi nga xamante ni seytaane mën na leen ba topp ko dañ koy dépassé yokk ci lu ci bokkul fii nga war a yem nii nga ko war a toppee mu ñëw ne la yokk ci lu baax lu baax dong lay jur ndax ne na seytaane moom day jàng nit ki xam ndax ak dum mooyu dafa nekk ci moom ak dëddu dafa nekk ci moom wala ndax ak ëppal dafa nekk ci moom bu santiree dum mooyu gi ak dëddu gi mu ñëw génne xelam ci topp yonente bi alayhi salatu wasallam def ci yeneen ba kooku du ki nga xamante ne bi nag moom kër gi mi ngi fi mu ñëw dépassé loo yokkuloo ko ca mbir ma lu ci bokkul mu dem ba ak jéggi dayoo ne ci loolu bu ko defee dafay waral nit ki yàq nu mu waroon a jariñoo ci topp yonente bi alayhi salatu wasalam seytaane yàqal ko ko tayib bu dee ci topp tamit ba léegi lu ñu war a jëraat ci ay dawabit mooy ne ci baabul ibadat dañuy topp yonente bi alayhi salatu wasalam fi lwasaili walmaqasid bu dee ci baabul muamalat dañ ko topp fil maqasid dun al wasail ndax al wasail fil muamalat gayr maqsuda bu fekkente ni ci jaamu yàlla la jumtuwaay yi muy pour def jaamu yàlla bi ak jubluwaay yam ca am da nga ko ciy roy ci ñaar yëpp bu boobaa defin bi da nga ko ciy topp waaye la taxoon muy def nga topp ko ci jaamu yàlla yi bu dee nag ci buntu jëflante la jubluwaay yi la ñuy xool pas jumtuwaay yi moo tax dañuy wax al ibratu fil uqudi بالمعاني لا بالمباني داني واخنا لي ني خول سي جفلانتي نيت ني موي سانس بي مو ام اك جوبلو واي سي نيت ام فا ليغا خامتاني بي موي فورم بي سي كاو سوما جالي ميكرو بي نالا كاي ما ماي لاكو 5000 مان لاي ماي ميكرو بي nga جوخ ما 5000 باكو ماي لا جفانديكو مي الاسلام داي جاب ني جاي تيند لا ndax mubadalatu mal bil mal la tamallukan wa tamlikan te loolu mooy mooy mooy bay ala tabit mooy dama jox bien nga jox ma bien man li la jox bien la yow li ma jox monnaie la la bu échange boobu amee kenn ku ci nekk moom li mu jël la considérer may baatu able loolu kenn du forme yi ci kaw ci ak ni ñi doxale ci walu mbir yo xam amul won yeen xet transaction yi li ñi xol moy sens bi mu am sens yi mu am da ngay dem fekk benn guichet électronique fekk benn machine électronique ñu jël ay soda def ko ci biir wala ay chips def ko ci biir bind prix yi nga ñëw dugal sa xaalis bés mu daal di jox la nga dem sa yoon pourtant jaay ak jënd ci l'islam dafay am ijab wa qabul da ngay ñëw ne ki jaay ma mu ne la jaay naa la wala jaay naa la nga ne ko jënd naa mu nga jox ko xaalis mu jox la kenn ku nekk dem sa yoon loolu mooy cosaan ci njaay ak jënd mais bu ñu demee ba jël machine teg ko machine boo xam ne waxul lijjantiwul moom li ngay mën a def mooy dugal xaalis bi mu génn jox la malgré loolu ci l'islam jaay lañ koy considéré ndax jubluwaay bi la ñuy xool ba ngay dugal xaalis bi la nga jublu woon ka ko fa teg tamit la mu jublu ba mu ko fay teg ak bi muy programmé machine am moo tax kon boobaa boo xoolee ci wàllu jëflante yi da ngay gis ne yaatu bi ci am te lépp du génn cadre l'islam comprendre diine mooy nit tax nit ki mën a comprendre loolu ci xam ne jumtuwaay yooyu ñuy jëfandikoo nekkul ay jubluwaay ci l'islam foog nga def différence entre moo tax ñuy wax ci alqawaid fiqiya ne yuxtafaru fi lwasaili ma la yuxtafaru fi lmaqasid mooy jumtuwaay yi léeg-léeg loo xam ne jumtuwaay la rek bu lay àggale ci dara li ñu la ci may ci yaatal ak ci oyofal ci l'islam duñ la ko may ci loo xam ne ay jubluwaay la loolu bu ko nit comprendre dina comprendre tey buñ changé méthode bu ñuy jàngalee ñëw toog fii di def conférence yor suñuy micro ak yu mel noonu nit ki mënul ñëw nañu yéen toppoo leen yonentu bi alayhi salatu wasallam ndax yéen a ngi conférence dañ naan solo tax nga wax ko mu ne waaw li ngeen di def nii micro beeg ni ngeen ko toogee ni ak tur bi ngeen ko jox ñu ne ko loolu yëpp forme la rek amul lenn lu mu yàq ci jëmmi jàngale xam-xam bi nga xam ne mooy jubluwaay bi bu fekkente ni def nañ ko defin bi mucc ay forme bi koy def ak organisation beeg yooyu loolu juste moyen la rek pour atteindre objectif bële yittewu l'islam mooy jubluwaay bi objectif bi moyen yi jëfandikoo bu ci dara nekkul loo xam ne lu xaram la bu ci dara nekkul loo xam ne lu safaanoog njàngaleem l'islam la noo ko mën a tuddee dara newu ci kon jël ko di ko dugal ci cadre ay bidaa ak yooyu njaxas gu rëy rëy rëy ak ñàkk comprendre moo koy waral moo tax léeg-léeg ñenn ñi boo leen déggee ñuy wax ci yu mel ni di jéem a argumenté ak di jéem a layal ay bidaa des fois da xam ne ci société bu xam-xam tasul bëriwul trop lañ nekk ñu moo tax ñu sañ a wax yenn yi wa illa nit ki finalement nit ñi dañ koy reetaan bu fekkonte ni xam-xam nekk na ci nit ñi ndax leg leg yi ñuy comparé ak confusion yi ñuy def vraiment da nga leen di yërëm da nga leen di yërëm xam ne compréhension nekkul ci seen bopp léegi ci dawabit yooyu nit ki kon war a bàyyi xel ci bu fekkente daf ne day topp yonente bi alayhi salatu wasalaam ngir topp gi nekk lu mat nekk lu nose mu bàyyi xel ci dawaabit yooyu ñuy wax muy tënk-tënk yooyu bu ci war a bàyyi xel bokkaat na ci tamit ba léegi mooy matale ci topp yonente bi alayhi salatu salaam te bañ a demee boor demee boor mooy topp gi ñu xër ci lool ci wàllu jaamu yàlla yi ba loo def ñu laaj la dalil waaye bu ñu ñëwee ci wàllu jikko yi ñu fàtte kenn ku nekk dugg ci mboy bi def lu la neex wax lu la neex du roy yonente bi alayhi salatu salaam ci jikko yu mu yoroon wa innaka la ala xuluqin azim akbarul muminina imanan ahsanuhum xuluqan wàllu jikko wàllu ya ci aju ci wàllu ay teggi nag wàllu rafet doxali nag wàllu rafet jëflante loolu moom ñi ñi ñi góorgóorlul ci roy yonente bi alayhi salatu wasalam ñoo la ci gën a rafet jikko waaye bu ñëwee ci nga xamante ne yu feeñ la yu fës la yu mën a def ay démonstration ci julli wi nag yu mel noonu ak yooyu nga xam ne mooy feeñ koo ci gis mu xaw cee bàyyi lenn lu tuuti nga koy bëgg a rey des fois sax da ngay gis ku ci exagéré bay àggale mbir di ko jox dayoo boo xam ne àggu fa ci di fitnal nit leg leg ci loo xam ni boo ko laajoon dalil ci quran ak sunna bu wér ci ak ci doxalinu salaf bu wane ne lii lu war la wala nii rek lañ ko war a defee mënu la koo indil te leg leg mu xaw la cee bëgg a poñe wala mu bëgg la cee wax ay mbir yu metti ba daanaka di la ci bëgg a génn ci yoonu alquran ak sunna te kooku di la def loolu dem leen ngeen jëflante jëflante bu ndaw ci wàllu àdduna ci wàllu sëy wàllu nangam da nga koy bëgg a wàccu ndax jikko yu ñaaw ak doxalin bu ñaaw boo xam ne di nga xam ne lii moom sori na ci di roy yonente bi alayhi salatu wasalaam kon buñ dee xeet tamit di wax ci wàllu roy yonente bi alayhi salatu wasalaam ba mu nit defee yenn nga koy taxte bidaa yi naan mubtadi la nangam la dal la mudil ak nangam bàyyil xel tamit ci wàllu jikko yi nga xamante ne yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na mooy mandargaal suñu ngëm yàlla goo xam ne gu mat la si ne bu leen teel nit ki njub googu muy wax ba tax mu am tar googu ci diineem ak dëgër googu ci diineem ba du nangul nit ñi tarfat ayn bu doy du dëggu la ci moom mi ngi ci moom dafa war a feeñ ci ay jikkoom yu rafet ndax akmalul muminina imaanan ahsanuhum xuluqan waaye contraire bi mënu fee nekk ba pare nit ki nag bëgg léegi topp li nga xamante ne mooy wàllu apparence bi ci kaw di ci ànd ak benn tar ak genn jéggi dayoo buñ dee wax ci liñ wax ci wàllu ne mutaabaatu nabi sallallahu alayhi wa sallam wax ne najaatun wa hidaaya loolu ci lañ agsi ci topp yonentu bi alayhi salatu wasalaam li nga xam ne loolu lay jural julit bi ci jubbantiku ak mucc bu ñu waxee mucc mooy mucc fii ci àdduna ci réer waaye mucc ci àllaaxira itam ci mbugal topp yonentu bi alayhi salatu wasalaam loolu la xaqiqatan moom ci jëmmam loolu la bi ci njëkk mooy topp yonentu bi alayhi salatu wasalaam jub la ndax mooy li ñu waxoon ne wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim wa innaka la tad'uuhum ila siratin mustaqim moom la yàlla garantir ne ko wa innaka la ala alxaqi almubin ci lii nga nekk nii mooy dëgg bu bér yaa ngi woo nit ñi di leen jëmale ci yoonu yàlla bu jub bi loolu yàlla wax ko ci alquran wax ñu ñun nañu wa in tutiuhu tahtadu bu ngeen ko déggalee topp ko ci lim leen di woo di ngeen jub yamul ci loolu mu ne man yuti rasula faqad ataa allah ku topp yonent yàlla bi alayhi salatu wasalam yàlla la topp ndax moom moo leen di teete di leen jëmale ci yàlla moom moo leen di jox ndigali yàlla yi santane yàlla yi mo len koy jox mom la yàlla missioné ne ko topp yonent bobu alayhi salatu wasalam njub la moy tek nit ci siratul mustaqim diko tek ci njub di feñé ci xam yàlla nit munta xam yàlla ci weneen yoon wudul yoon bi yonente bi alayhi salatu wasallam nekkoon ak ay sahabam yi nga xam ne da ko fiy dégg yépp ci ay waxi maarifa billah ak xam ay yàlla xam ay xaqiqaat yépp ésotérisme bu ñu sos la ginnaawam inspiration du ci l'islam ci yahudiya la ci judaïsme la yahudi ñoo ñëw jël seen diine tawil ko

moom la yenn ci philosophie daan wax la nature naturelle moo ne nature bi rek moo fi nekk boo ko boolee dans son ensemble ci ni muy màggee ak forme yi muy jël mooy yàlla boo ko xoolee ci biti ak diversité bi ci am loolu lañ tuddee mbindee fi te muy réer gu bér di toog di wax ci wàllu xam yàlla maarifa billah ñenn ñi di wax ci maarifa billah ne boo demee ba xam yàlla da xam ne lépp yàlla la lu am rek yàlla la ñoom du ci jëmm yi la ñu waaye ci ci yi ci bu nit ki naanee sàngara ñu yàlla la yàllaa tax mu naan ndax lépp lu am yàlla moo ko def wa ma tashauna illa an yasha allahu rabbul alamin ki julli yàllaa tax mu julli ki naan sàngara yàllaa tax mu naan sàngara kon ñoom ñaar ñëpp dañoo topp yàlla ndax kenn ku nekk coobara yàlla nga def ñu jaxase al mahabba wal irada comme niko ko mu'tazila yi defee woon ñaari mbir yu bokku li sopp yàlla ci ciobare ci walu dogal mu def ko bàyyi mu am donte bëgg ko ñu jaxase ko jaawale ko li yàlla bëgg gëreem ko donte du ci force kenn mu nek ñaari buntu yu sore lool ñu jaxase li musal nit ci xeetu réer yu mel noonu mooy tënku ci hadiyu muhammad alayhi salatu wasalam roy yonent bi alayhi salatu wasalam mi nga xam ne moo doon wax naan ala inni a'lamukum billah maa leen gën a xam yàlla wa atqaakum lillah maa leen gën a ragal yàlla amul ku ko gën a xam yàlla ndax innama yaxsha allaha min ibadihi alulama moo gënoon xam yàlla moo gënoon ragal yàlla alayhi salatu wasalaam kon bu fekkee bëgg nañu xam yàlla nañ ko xamee ci yoonam nañ ko xamee ci njubam ci wéetal yàlla sori lépp lépp lépp loo xam ne bokkaale la bokkaale yi nit ñi nekk ci di jël ay mbindeef di leen màggal ba di leen jox ay dayoog yàlla dayoo borom bi subhanahu wa taala li ko gën a encouragé waral ko ci nit ñi mooy topp ñàkk a topp yonente bi alayhi salatu wasalaam ñàkk a roy yonente bi alayhi salatu wasalaam moo leen yóbbu moo tax shirk di bëri ci biir julit ñi wa ma yuminu aktaruhum billah illa wa hum mushrikun gëm yàlla gi naam waaye bokkaale gi ñu koy boole bu fekkee topp nañ yonente bi alayhi salatu wasalaam ak ni mu doon wootee ci wéetal yàlla قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا يوي نغا خامني دون نكو واخ جولي ني ديكو دنت تيالا ديكو كو واخلو سي القران مكو دان فدالي سي اي جيفام اك سي اي توحيد توحيد توحيد وتل يالا لي دون نقوخ توحيد توحيد بكاني سن بن استاذ بو في رحمه الله سان قيام دون تودو تورم مي سالالين képp koo gis ci yoonu roy yonent bi alayhi salatu wasallam topp ko ding ko fekk mu sori loolu bokkaale di jël mbindeef te léeg-léeg loolu moo indi frustration yi mooy yooyu ngay sori di ko ñongale sa diine ak di ko màggale yàlla ci kenn ku ne loolu mooy metti gaa yi des fois bañ naan amoo leen respect ci mat ñeeg da leen a di xas mat ñeeg da ngeen di nangam mat ñi ndax bëgg nañ xaabaabal gi ñuy def loolu nit ñi ba di leen tàbbal ci ay bokkaale yu kenn xamul bëgg nañ ngay def loolu wala boo ko deful tamit nga questionné ko wane ne lu mën a nekk la lu ñu war a ànd la boo deful yenn ci ñaar yooyu nag di wane ne ki ñu war a màggal te jaamu ko nekkal ko ay jaam ñun ñëpp mooy yàlla ki ñu war a jël jàppee ko yonent di ko roy di jëlee ci moom suñu diine mooy yonent bi alayhi salatu wasalam ñu da leen di ŋàññ da ngay ŋàññ seen i mag allahul mustaan kon bu fekkente ni xool nañ dañ gis ne gi garantir garantiral nit ki ci àdduna topp yonente bi alayhi salatu wasalam fu ci nit ki tollu rek na nat ndiwom ci loolu mo do wax ne xayrul hadi hadi muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam njub gi gën ci njub moy mooy muhammad alayhi salatu wasallam mo do wax ci lépp mbir nit ki góorgóorlu tënku ca ci la yonente bi alayhi salatu wasalam nekkoon loolu mo koy garantir ak njub leneen lu mu def dudul dul rek mi ngi ci danger mu bokkat ci timit ba léegi mooy mbugalu ëllëg te yàlla boole woon ñaar yooyu ci fal yaxdari alladina yuxaalifuuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim ñii wute woo di safaanoog mbiru yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla nee na mbugal dina leen dal bu ëllëgee waaye réer tamit ak diina bu yàqu yenn ci borom xam-xam yi sax ku mel al imam ahmad dafa doon wax ne fitna boobu mooy azayq wala ashirk muy jeng buy nekk ci xolu nit ki bokkaale buy nekk ci xolu nit ki nee na moom la yàlla di wax ne nañ moytandiku mu dal leen bu ñu bu ñu safaanoog mbiru yonente bi alayhi salatu wasalaam alimam ibne kathir ci tafsir nee na mbiru yonente bi alayhi salatu wasalaam mooy sunnaam mooy njàngaleem mooy yoon wam jaaroo yoon woowu yàlla wax ni képp ku ko safaanoog moom mooy ko nee na réer dina la dal fii ci àdduna bu ëllëgee mbugal dina la dal kon lii musal nit ki ci loolu mooy mu góor góorgóorlu ci tënk ci njàngaleem yonente bi alayhi salatu wasalaam bokkaat na ci njariñ yi muy jural nit mooy yàlla nangul la sa diine nangul la sa diine ndax diineem jooju la yàlla wax ne wa raditu lakumul islaama diinan bi muy dund laata mu fi jóge diine jooju mu yor doon ko jàngale moom la yàlla tamponné ne gërëmal naa leen ko mu nekk diine yàlla gërëm ña ca newoon laata ñuy faat muy saxaaba yi léegi bu fekkee nit ki bëgg na yàlla nangul ko diine ma na na roy loolu na topp ci lool te moytandiku yi ñu fi sos ginnaaw ndax loolu yàlla garantiru ko موتاخ بودون واخنان من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد في حديث نفس صحيح مسلم كوي داف جيف تامو سي سوني ديغال يالا دوكو نو امو سي سوني موي روي لو ما توپ لو ما يالا دوكو نو يالا سخلو موتاخ واخ واخون ني قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما ربكم انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا wax jim ko waxon ne ko na wax tollu wayam ci ne ab jaam la bindeef la yalla ko yebal ci nit yàlla yekete ko ci ko loolu waye kep ko xamanteni na déclarer ne kep ko xamne gëm na ni dina borom mu ëllëg mu fay na jëf ay jëf yu baax te bu mu ak yàlla ci li muy def kenn wala dara loolu Fudayl ibn Iyad daf doon wax naan mooy mu sàmmonteeg ñaari mbir ci ay jëfam benn bi mooy mu sell am ixlaas li muy def yàlla tax tax mu koy def ngistal taxul déggtal taxul bépp jëf boo xam ne jëfi lislaam bu ñu jaam jegee yàlla la yàlla du ko nangu bu ci loola duggee inna allah la yaqbalu min al amali illa ma kaana xaalisan wabtughiya bihi wajhu llah bàyyi beneen critère bi mooy mu roy ci yonente yàlla bi alayhi salatu wasalam dëpp ko lekoog njàngaleen yonente bi alayhi salatu wasalam ndax bu dëppoowul ak njàngaleen yonente bi alayhi salatu wasalam yàlla du ko nangu kon nit ki bu bëggee yàlla nangul ko ay jëfam muy sonn di kër këri na góorgóorlu xool na ko yonent yàlla bi defee woon na ko jàngalee mu jéem a sàmmonteeg loolu loolu nekk ci yi nga xamante ni dina jariñ nit ki bu fekkente ni góorgóor na ci loolu bokkaat ci mooy noflaay bi ci nekk xam nga daf doon wax ne inna diina yusuf inna diina yusrun la waxoon waxul yasirun diina mooy ak yomb ndax dafa yomb ba fa yomb yam waaye yombaayu diina boobu mu doon wax naan wala yushadda diina ahadun illa galaba banaan naan képp ko ko teengal mu not la mu daaneel la moom diine yombaay boobu mu ngi nekk ci teg ko ci kaw njàngale mu leeram moom moo doon jàngale compréhension boobu mu fi bàyyi woon mu leer nañ bu ñu ki tënkoo ci loolu ci roy ko day gis ne diine ji day yomb ci moom fitna ak coono juñ koy teg boo xam ne ay moroomi doomu aadamaam ñoo ko koy teg te ëllëg du ci jariñu ci digganteem ak yàlla du ci am insha allah day pratiquer diineem fépp fu mën a nekk ndax yonente bi alayhi salatu wasalam dafa wax ne innama bu'istu bil hanifiyati samha yàlla daf ma yabal jox ma diinay wéetal yàlla joo xam ne dafa yomb dafa jàppandi alayhi salatu wasalam loolu li muy wane mooy bu nit ki tinkeekoo ci roy googu dem topp ji leneen coono la ciy jële wa rabbil kaaba coono la ciy jële nga gis nit kiy kër kër yi nekk ci yoo xam ni yu metti lool mu ne ci guddi ak bëccëg ay dox yu ñu koy jox junni junni dox ay fanaan guddi nangam nekk ci ay mbir yoo xam ni xamuloo fu mu ko jëlee ci njàngalem yonente bi alayhi salatu waaye nit ku ko yéem ku mu doyloo ci diine moo ko ko jox mu yaakaar ne juba cale coono boobu ngir nit ki teggil ko boppam bala muy def ci jaamu yàlla nekk lu jàppandi lool ci moom mu koy def defin bu sell bu set yàlla nangul ko ko li ciy dimbali nit ki mooy mu ko ci roy yonente bi alayhi salatu wasalaam لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم يالا دافو بن واخ بو ام سولو بوم واخ صحابه يي سوره الحجرات ما دافني صحابه يي خام لين يونت يالا ميغي سي يين ميغي اندك يين ميغي نيكك يين لول نك بوكو نا سي نجارينم موي نين كوي دغلو مولين دي اورينتي سي لي گن سي يين نده بارينا يي نين دي خطو دي سي جيم دي سي كير كير yaakaar ne mbaaxa ca nekk bu leen ci fekkoon ànd ceeg yéen di ngeen son la anittum law yutiicukum fi kathirin min al amri la anittum bu leen fekkoon ci lu bari ci li ngeen di ñëw di ko ko gaaral kon di ngeen sonn lool coono te du ngeen jëriñ kon loolu lu muy tekki mooy bu leen di xëccu di jiital seen i xel bu leen di xëccu di jiital seen i xel ci diine yàlla li mu waxoon mooy wa inna kathiran la yudilluna bi ahwaihim bi gayri ilm وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم ñu bari ci nit ñi topp seeni xel moo leen di sànq ci diine te fekk ne lañu def tegul ci xam-xam moo tax kon roy yonente bi alayhi salatu wasalam moo lay dimbali ci loolu ndax coono boobu nit ñi nekkee kër kër jooju nit ñi nekkee da nga xam la ca nekk lu jara sonn lu jara def ak ak lu ko jarul di nga am diine boo xam diine bu yomb la bu leer la bu naturel la boo xam ne ku la gis nga koy jëfe mu xam ne li ngay def ni lu leer la lenn loo laaj nit ki mu ne lii mooy tegtalam fii lañ ko jàngale fii lañ ko waxe nii lañ ko waxe nii la ko yonente ba jàngale waaye gis nit muy kër kër kër kër ju métti loo ko laaj du la tontu xuloo la koy tontu ay xuloo ndax amul argument yu la wax loo ne ko li ngay def nii lu tax daanaka day mer day frustré ci bëgg-bëggam rek la lay tontu ak ci xelam xel mu rafet wala bëgg-bëggam yëg-yëgam ngëmëm sentiment ci yooyu rek lay doon mais ci xam-xam bu leer delloo ko ci yonent yàlla bi déedéet loolu doon wala dañ koy xëcc di ko forcer mu bokkaat ci ba léegi mooy boo gisee xiiroob ngaayoo fi nekk ci biir jullit ñi ci xajjali koo bi lan moo ko gën a waral li ko waral mooy bàyyi fi njubu yonent bi alayhi salatu salaam ak roy gi ñu ko war a roy topp yiñ fi sos ak woote yu bëri yi kenn ku nekk ñëw di fëgg dënnam ne mbir mi man la man la yàlla jox caabi aljanna ku ma gëm dem nga aljanna ku ma topp nangam ku ma lii lii kenn ku ne naan li yàlla jox na ma ku ne ne yàlla jox na ko dañuy wax a wax a wax bay wax ci yéen yàlla di jox loo xam ne yonent bi moom ci waxu yàlla jox ko ànd ak loolu ay nit dañ leen di gëm ci kaw loolu lan mooy firndew ne li muy wax lu am la amul benn firnde yàlla joxew ci benn tegtal moom moo ko wax nit ñi gëm ko ci ndax màgg na ci bëtu nit ñi ba àgg boo xam ne lu mu wax dëgg la foofu la danger bi nekk ci mbir mi léegi mu des nag bu ëllëgee nga taxaw ci kanamu yàlla yàlla laaj la ndax moom moo la waxoon ne la li fii wax dëgg la lan nga koy doon mais nit ñi duñ ne se pose pas cette question ñi ngi ci àdduna ñi ngi ci àdduna ëllëg lan la ñuy wax yàlla seen yoon newu ci yàlla wax na la lim lay wax bi fi yonentam bi nekkee jox ko téere bu mat mu jàngale ko ay at jàngale ñu njubam ba jóge ne la toppal li moytu yi ñu fiy sos sama ginnaaw انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا لن تكف عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين فان كل محدثه بدعه لن تك موي دافنا كيب كو خامني سي خامنا بود فان دينا جيس خيو اك تاخاليكو اك ووتي بو ري ري ري بو بري سي سما وخيت واي لا نين تنكو سما جانغال لما في باي اك نيتي توك سما غيناو دي سي ووتي تنكو لين سي لولو te na ngeen moytandiku yi fi sos ci ginnaaw bi ndax yi fi sos yëpp sànkote la léegi nit ñi santaane boobu ak ndénkaane loolu contraire bi lañuy jël yonente yàlla bi nga xam ni moo gën a bëggal xeetam yiw keneen ku dul moom ci nit ñi yàlla subhanahu wa taala ne xarisun alaykum bil muminina raufur rahim ndax lim njëkk wax sax mooy azizun alayhi ma anittum lépp lu ngeen jànkonteel ci coono day dis ci moom mun ta supporter gis xeetam di sonn lu baax rek la leen bëggal ku am ñeewent la ci yéen ku am yërmande la ci yéen yàlla melal ko lool ci alquran muy dénk xeetam di leen moytandiku lool liñ fiy sos ci ginnaawam di leen delloo ci njàngaleem nit ñi di bàyyi njàngaleem di leen topp ji yi ñu sos ba pare nag ànd ceeg dëgër fit ak xel mu dal lool ci ne ñu ci njub loolu mooy paradoxe mujj jamono gi ñu dund moo tax kon xeet bi xàjjalikoo yi lan moo ko gën a jural li ko jur mooy kenn ku nekk da ngay xel saw yoon bëgg nit ñi fekk ji la fa pour mën a bennoo bennoo bi du des ci li fi newoon nga xam ne moo ñu war a bennale njàngale mi fi newoon bi abdullah ibn masud doon wax naan ittabiu wala tabtai tabtai tabtadiu wa alaykum bil amri al awal wala wa alaykum bil amri al atiq na ngeen topp te bañ di sos dellu leen ci mbir mu njëkk ma ñenn ñi daan wax naan alaykum bil amri al awwal alladhi kanu alayhi qabla an yaxtari yaxtariqu dellu leen ci mbir mu njëkk ma ñu nekkoon laata ñuy xajjaliko léegi nit ñi xajjaliko topp seen yoon am seeni kilifa ak seeni njit ci diine structuré seen yoon ba ne ci xeet bi xajjaliko ñuy laajte lu tax mu xajjaliko kenn ku nañu jox la joxari la baram ci tuumaal la ci ne yaa tax ñu xajjaliko ba mu des ñoom ñi nga xam ne ñoo taamu beneen yoon topp ko am ci seen tur am ci seen i ngëm-ngëm ak seen i tëralin yoo xam ne keneen ku bokkul ci ñoom ci jullit yi bokkule ko am ñoom naka la jullit ñi mën a benn leen mën a bennale de lenn la mooy diine ji yàlla wàcce ci muhammad ibni abdullah alayhi salatu wasalaam loolu moo ñu mën a bennale ndax yàlla daf ñoo waxoon ne waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu xablullahi jooju mooy diine jooju ko yàlla jox waye kenn ku ne mënul da fent mbiram ba pare naan li moy hablullah loolu mënul nekk mo tax kon xàjjalikoo gi ak tàqalikoo gi fitna bi mu nekk nga xam dañ doon wax naan al iftiraqu adab mooy xàjjalikoo gi mbugal la ku ñu yàlla subhanahu wa taala di mbugale ndax wa min alladina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu xadan mimma dhukiru bih fa agrayna baynahum al adawata wal bagdaa ila yawmi alqiyama wa sawfa yunabbiuhum allah ma kanu yasnaun moy nek fi bàyyi diine lam nga ca war def defuloo ko cër biñ ci wara am amuloo ko taxawaay bi defuloo ko yàlla nee na li muy jur rek ci xiiroog naayo fa axarayna baynahum al adawata wal bagdaa ila yawm al qiyama nasaraan yi loolu la yàlla wax ba ñu lañ waroon a def xiiroog naayoo rek ci lañ nekk guddi ak bëcc jurit ñi tamit loolu dong la li ñu waroon def mooy roy yonente bi alayhi salatu wasalam topp ko dellu ci njubam jàng ko di ko jëfe coow li yëpp jeex defuñu ko kenn ku nekk génn samp sa mbër ne fii la ñaata milliards yi doomu aadama ñoo fi nekk koo fi samp rek nit jaamu na yàlla ba yàlla dugal ko aljana te xamul ko yonent bi rek mooy ku incontournable ci diine ji koo xam ni ku ko xamul doo nekk ko jullit saxaaba yi mu jàngaloon nga xam leen ngir mottalee ko sa xam yonent bi ak xam njubam waaye ñeneen ñi ci des da ngay génn fii laaj wax ko nit mu ne la kuy ko te loo ragal yàlla moo la ko gën a ragal yàlla loo baax ci lislaam moo la ko gën a def te kooku ngay wax jàpp ne ku nekkul ci yoonam doo sax jullit boo ko ko waxee naan la kuy ko yow fan nga def foo jóge loolu la lay wax allahul mustaan mu bokkaat ci tamit mooy dëggal bëgg yonente bi alayhi salatu wasalaam dëggal gëm gi nga ko gëm mooy wax gi ngay wax ne rek ashadu ashadu anna muhammadan rasulullah maa ngi seede ne muhammad ndawul yàlla alayhi salatu wasalaam lan moo koy dëggal lu dul jëf luy feddali ak luy firndeel ne yow sa seede boobu dëgg la ci yow te loolu lañ waxoon ci aaya ba ida jaaka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yalamu innaka la rasulu wallahu yashhadu inna almunafiqina la kadibun bu yàlla waxee ne nafiq yaa ngi ñëw ci yow naan la ñoom dañuy seede ne yonentub yàlla la nashhadu innaka la rasulullah nashhadu lañ wax dañuy seede yàlla ne ñoom nee nañ dañuy seede ne yow yonent yàlla yàlla ne moom xam na ne yow yonent yàlla nga yàllaa ngi lay seedal loolu lakin allahu yashhadu bima unzila bima anzala alayka yàlla seedal na la li nga xamante ni wàcceel na la ko yàlla seedal na ko waaye nag naafeq yi loolu ñuy wax yàlla nee na du dëgg li ñuy wax yàlla nee na du dëgg yàlla weddiw leen ci ne yow yonent yàlla nga ndax loolu dëgg la waaye li leen yàlla di weddi mooy wax ji ñu wax ne ñoom seede lañu ne yonent yàlla seen seede boobu la yàlla wax ne du seede bu dëkk mooy ne kuy seede ne seedeel nga yonent bi ne yàllaa ko yónni wa ma arsalna min rasulin illa li yutaa bi idnillah yàlla nee na bu yabalee yonent dafa nekk ne ko yabal ngeen ñu ko amul benn sens nga ne seede nga yàlla la ba noppi te doo ko topp kon dëggal ne gëm naa ne yonent yàlla la mi ngi nekkee ci topp ko sa kéemtalaay kàttan ndax loolu moo war a nekk sa relation sa rapport ak moom alayhi salatu wasalaam waaye tamit bokkaat ci yooyu ba léegi dëggal gëm gëm bëgg bi nga bëgg yàlla mooy ci ci ñun ñëpp dañuy wotoo bëgg yàlla lan la yàlla waxoon qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum cheikh bu am na ndox amul de man commencé sonn la ndox fay mooy jazakallah khair léegi nit ki woote woon ne dafa bëgg yàlla lan la ko yàlla wax qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni waxal ñooñu di wax ne bëgg nañ yàlla ne bu fekkente ni bëgg nañ yàlla te bëgg yàlla gi dëgg la ci ñoom nañ la topp yow yonente bi alayhi salatu wasalaam nañ la topp bu ko defee yàlla dina leen bëgg te dina leen jéggal seen i bàkkaar abdullah ibn masud ne kon yàlla nattu na képp kuy wax ne bëgg na yàlla ci ne sa bëgg yàlla gi dëggalee ko topp yonente bi alayhi salatu wasalaam kon nit ki nga xamanteni day wote wo bëgg yàlla ak sori ci yàlla natt ko ci topp yonente bi alayhi salatu wasalam natt ko ci loolu bëgg yàllam googu natt ko ci loolu loolu moom mooy yi nga xamanteni ni bokkaat na ci njariñ yi nga xamanteni ni topp yonente bi alayhi salatu wasalam am na ko bu ko defee mu jural nit ki yàlla moom bëgg ko kon boo bëggee yàlla bëgg la toppal yonente bi alayhi salatu wasalam boo ci góorgóorloo yàlla dina bëgg ndax def na yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim yàlla dina leen bëgg bi nga xam mom lañu la moy texe gi mi jural nit ki texe gi nga xamanteni dina ko jural nit ki moy ne nit ki bu fekkee bëgg na texe fi ci aduna ak ci àllaaxira na gor gor lo ci top yonente bi alayhi salatu wassalam wa aqimu salata wa atu zakata wa atiu rasula laallakum tuflihun moy ne top len yonente bi alayhi salatu wassalam bi ko yalla wax fi ci aaya daf ko lëkkale ak jaamu yàlla ben jaamu yàlla bi jaamu yàlla jëm benn bi di jaamu yàlla ay alal yàlla loolu ci dalaalatul ixtiraan lañ ko tuddee yàlla digal la nim la digalee jaamu yàlla bi ci ne la waqimu salaata taxawalal julli waatu zakata joxeel julli noonu la la ci tegalee wa atiu rasula te ngeen topp yonente bi alayhi salatu wasalaam laallakum tuflixuun bu ko defee ngeen texe moo ne kon jullit bi nga xamante ne bëgg na texe bëgg na réussir ci àdduna ak ci àllaaxira na góorgóorlu kémtalaay kàttanam ci topp yonente bi alayhi salatu wasalam lii nag dañ koy wax mu nekk lu théorique nii mais bu ñu ko contextualiser ñu contextualiser ko wàcce ko suñu jamono bi ñu dund nii dañuy wax ne lu àdduna di gën a lëndam ci réer lu àdduna di gën a lëndam ci réer gi fi nekk rek ak ñàkk xam gi ak jaxas gi ci nekk ci wàllu lislaam te loolu kenn mënu koo weddi kenn mënu koo bañ nit ki di gën a soxla leeraay bi nga xam ne leer bi nga xamante ni moom la yàlla waxoon ne wa sirajan munira leer googu yàlla jox muhammad ibn abdillah mu ñëw indi ko di liira di leeral nit ñi di leeral kaw suuf ba lëndëm jaahiliya gi fi nekkoon lëndëmuk réer gi fi nekkoon ci ñàkk xam yàlla ak mbiru yàlla mu dindi ko ci wotem ba yàlla subhanahu wa taala waxoon nañu ne nañ topp leer googu nañ topp njub googu lu kaw suuf di gën a lëndëm ndax réer ndax sos ndax sori njub julit bi nga xamne mo bëgg tek tànkam ci sirat al mustaqim te namu lan demé sirat ba nek ci kaw safara jahannama ñu war ko jéggé suñu jëf yàlla ne wa in minkum wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا siraat boobu nga xam ne moom la yàlla gàll ci kaw jahannama te wax ne yéen ñëpp di ngeen ca jaar nit ñi di ci jaar ak seen i jëf te yàlla waxoon ne yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladina amanu unduruna naqtabis unduruna mooy xaar leen ñu bis bi nafiq yi di wax ñu gëm yàlla naan xaar leen ñu naqtabis min nuurikum ñu jël ci seenuk leer leer gi ñu gëm yàlla liggéey fi ba yàlla jox leen ko ëllëg mu nekk li leen di niital ci kaw sirat ñu mën di gis fi ñuy teg seen tànk bay jéggi ni ñu soxlaa leer googu ca keroog ëllëg yowmal qiyaama ngir mën a jéggi sirat ba duñ tàbb ci jahannama fii itam siratu yàlla bi yàlla wax ne wa anna hada sirati mustaqiman fattabiuhu yoonu yàlla bi ñu yàlla tegal fii ci kaw suuf nañu nañ ci teg suñu tànk ngir jéggi safara jahannama gi nga xam ne mooy réeruk àdduna gi nekk fi nga xam ku ci nërmeelu soo moytul mu nërmeel la ëllëg yowmal qiyaamatim ci safara jahannama li ñuy dimbali bañ mën cee teg suñ tànk bañ a juum di ko teg ci ndeyjoor wala ci càmmoñ muy dugg ci mboy gi mooy jël torsu muhammad ibni abdillah alayhi salaatu wasalaam leer boobu ko yàlla joxoon wa siraajan muniran boobu ñu jël ko nit ko ngir mën a xam fan la ñuy teg suñu tànk loolu mooy aw man kaana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnaas كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها لولو موي مثال كو يالا جوخ لير كو يالا جوخول لير كون كيف كو يالا بغل كيف كو بغل بوبام كيف كو بغل بوبام نجوب بغل بوبام تيغو تي صراط المستقيم هدايه نغور غورو تي روي يونت عليه الصلاه والسلام دك دك فلا مير مي نيك موتاخ بو نيكو نيرون واخ نان الخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في ابتداع من خلف لو كان خيرا لسبقونا اليه daan nañ wax naan yiw bépp yiw mi ngi topp ñu jiitu woon ña te kooku loolu mooy yonente bi alayhi salaam ak gaayam ya waaye bépp mbonte mi ngi nekk ci li nga xam ne ñoo ñëw ci ginnaaw bi dañ fi sos ndax lépp luñ fi sos bu doon mbaax a nga ca ñooñu ñooñu ñooñu ci jiitu ñun duñ leen ci jiitu ndax ñooñu gën a xam lislaam te ñooñu gën a ragal yàlla loolu bu fekkee nit ki comprendre na ko de noppalu ci coow li coow lu bëri li fi nekk yiw la lu leen ko tere woon a def dañ koo xamul wala dañ koo bëgguloon a def loolu question la bu nit ki war di posé ke boppam fu toll ñi ngay ñaan yàlla subhanahu taala mu dolli ñu defal tawfiq hada wallahu alam wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ayakum allah xaw xaw a commencé commencé woon di sonn tuuti barakallahu fikum alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن جعلنا الله من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه من ينظر سبحانه وتعالى مبارك في مدافعني في مدينة وقت ci jëfe lu rafet li ñi ngi ñaanal oustaz yàlla borom bi subhanahu wa taala sàmm ko bëril ñu mel ni moom yàlla defal ko tawfiq lii mu fi leeral ci thème bi am na solo am solo boo xamante ni ñëwit ci jamonoom bu ci kenn képp si ñun jëriñu mën nañoo jëral euh, texe fi dunia wal axira comme nu mu ko waxee topp yonente bi alayhi salatu salaam moom lañu borom bi subhanahu wa sant na ci ku nekk góor góorlu yàlla mooy kiy jubal waaye nit ki dafa war a góorlu ci li nga xamante ni ci la nekk mu diin islam kon yàlla na nu borom subhaanahu wa taala déggloo waxtaan wi nga xam ni oustaz wax na ko fi ci am solo gi mu am solo gannaaw ga yàlla may ñu kàttan guñ ko mën a jëfee loolu lu ko yomb yàlla na ko borom subhaanahu wa taala def bu loolu weesoo mbokk yi ci euh, commission finance bu coordination bi ak waa Patte d'Oie yóbbante nañ ñu ci ne yu mel ni xam ngeen ni li koy taxawal léeg-léeg day laaj euh, yenn somi ba tax na. mbokk yi dajaloo nañ fi tey ngir déglu si kàddu borom bi subhaanahu wa taala ñu bëggal leen yiw yiw woowu mooy fi ne ku fi ñëw tey ci am solo ki nga xam ni am na ko solo leeral yi nga xam ne oustaz mi ngi ko doon leeral ba tax nga jubee ci wala nga jëlee ci loo xamante ni bis ni ki tey di nga continuer di ko def ci say jaamu yàlla te daawoo ko def kooku njub gancee am noonu ki nga xam ni moo jël alalam def ko ci lii moom it du ci perte kon ñi ngi woo mbokk ci ku fi nekk rek li nga xamante ni indaale nga ko ba ngay ñëw bàyyi fi dara wala nga ba fi lépp sax jar na ko am na mbokk yu circulé ci biir nii lépp loo xam ni nit ki indaale na ko na ko fi bàyyi wala bu munta bàyyi lépp it na fi bàyyi lenn jaayanteeg borom bi subhanahu wa taala ngir yu mel nii benn la ci gox bi ñu organiser ko tey fii waaye dina dem ci yeneen gox yi te alal jooju nga ciy def ci alal googu lañ koy defee te loolu mun na laa jural ak yiw yu baree bari fa borom bi subhanahu wa taala kon ñu ngi ciy woo mbokk yëpp ci góor ñi dina am ñu dugg eh, ci jigéen ñi na am ku ñu dajaleel foofu incha allahu taala lu jiitu ñuy ñëw ci ci question yi mm-hmm. naam am na ay question yu fi ñëw gannaaw gi mooy ne eh, ustaas ki dafay laaj ne lan la diine islam wax ci màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi masala bu bëri coow la ndax dafa nekk lu sax si jamono te nit ñi jël ko am ngiru xol لك لو كان لك الإسلام لو كان لك لك أسكن الإسلام لك لك الإسلام لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك في القرآن لك لك لك السنة لك لك لك لك لك لك لك شيء لك لك إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا moyne li ñi wuté ci walu diiné dañ ko wara délo ci jàngalé borom bi subhanahu wa ta'ala ci téréen bi delloo ko ci njàngaleem yonente bi alayhi salatu wasalam ci sunnaam buñ ko ci gaaree jox ko déggin bu mucc ay dinañ xam àtte balan la walaw radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladina yastanbitunahu minhum delloo ko ci njàngale yonente bi alayhi salatu wasalam delloo ko ci borom xam-xam yi fasalu ahla dikri in kuntum la taalamun waaye bu fekkente ni loolu nam ca war a amee ameewu ci noonu mbiru xol lay mujj doon mbiru xasanteeg ŋàññanteeg yëccanteeg yooyu rek lay daal di mu di doon yonente bi alayhi salatu salaam amul fenn fu mu jàngalee ne anniversaire am nañ koy màggal di ko feete notion boobu amul ci lislaam jullit ñi mënuñu koo jële feneen fu dul roy ci nasaraan yi toppandoo ci nasaraan yi ci seen 24 décembre te li leen di dal nasaraan yi moo ñu dal ndax loolu la yonente bi alayhi salatu salaam waxoon ne la tattabianna sanana man qablakum shibran bi shibra ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قيل من يا رسول قيل اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن موي رايجين يرايجي جيتو وانت لب لني لب تسن بري دينة تكن تيك توف تيك رير يكوي وار يوي جي فكا تدير دير دين يكوي تي نيوان يلي كانت تسن دينا ويرن تدير دين يكوي جي فكا تدير دين يكوي فانو تدير دين يكوي li nit ki waroon gën a góorgóorlu ci firndeel bëggam yonente bi alayhi salaam màggal ko mooy doyloo njubam doyloo la mu nekkoon di ko def ndax bu dee gëm loo xam ne luy jëmale nit ki ci yàlla la du ko dugal àjjana jàngale na ko laata mu fi jóge gàttal liwul benn yoon ba yàlla seedeel ko loolu ci keroog taxawaay ba ci xajjatul wadaa yàlla wàcceel ko aay ba yow ma akmaltu lakum diinakum da leen da gaari bañ ku ko tekkee ne yàlla matal na diina mooy ko gën wax quatre-vingt-deux jours wala lu ko yées tuuti la yonente bi alayhi salaam teg ci ginnaaw bi aaya boobu wàccee ci dund ci kaw suuf yoo xamante ni ay atte wàccaatu fi yu tax ñuy wax lu fiy soppeeku amaatu fi ci diggante bi yàlla def déclaration boobu ci matuk diine mooy mission bi ko yàlla joxoon matal na ko kon mu matal mission boobu ba seedaloo saxaaba yi saxaaba yi seede wax ne loolu am na muy joxar bi seen seen toogaay bi di jëmale baaraamam ci asamaan naan allahuma fashar yow yàlla yaa dégg li ñuy wax ne jottali naa kon seedeel loolu lu waroon a lu tax nit ñi waroon tax ñu xam ne mission bi ko yàlla joxoon ci ne yaa ayuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik def na mission bi mu mën fay nekk jàngale bi ba jóge mook saxaaba yi fi nekkoon nga xam ne bépp jaamu yàlla ak bépp taxawaay bu nit ki di jege yàlla ñoo ci raw ku mën a doon ku daan taxaw di jaamu yàlla ba say tànk di néew yi di sant waxoon jullit ñi ne leen maa leen gën a xam yàlla maa leen ko gën a ragal boole gën a xam gën a ragal nga xam loolu yépp ci moom alayhi salaatu wasalaam mu mën fay nekk ba jóge fi saxaaba yi nga xam ne ñoo raw keneen ku dul ñoom ci lislaam nekk fi ba jóge fi lenn ci lu niroog loolu musuñu koo def bu ca mbaax nekkoon nekk lu ñuy bëggee yonent bi di ko ko màggalee di ko amee ngërëmul yàlla loolu mënul nekk lu lu leen di ump lu ñuy ñàkk a xam ndax bu boobaa loolu ayib la ci yonent bi alayhi salatu wasalam ju mel noonu mu réere ko yàlla jox ko diine yabal ko jëf ju mel noonu mu mën koo réere xamu ko saxaaba yi xamuñu ko loolu wérul xam nañ ko lu baax la lu leen ko tere woon def dara empêché wu leen pour ñu def ko dajaloo toog ne dañuy màggal sa bis bi nga judd at mu jot ñu màggal ko Abu Bakar rey fële nag Omar génn fële rey ay gëléem ñu togg cin yay dàq yi mbana ya ñu naan dañuy màggal ndax yonente bi tey la judd woon sa at bu jotee wallahi bu nekkoon lu baax saxaaba yi jël seen alal yépp def ko ci bis boobu li ñu amoon ci ay gàtt yépp ñu rey ko woo nit ñi teral leen def nangam sàngam lu ñu xam ci xam-xam wala lu ñu ko mën a tàggee ñu toog ko wax ko ndax ñu ko gënoon mën a tàgg ndax ñoo ko gën a xam bu dee ay yu neex yu ñuy way ay poésie ñoom dañ koo nàmp ay arab lañ seen jamono jamonoy way la woon dañoo judd ci loolu ñooñu dàq way yonent bi foofu waaye ñoom seen bëgg yonent bi daaw ñu ko ëppalantee ak di ci rawantee ci toog di neexal ay way ak di ko way way yu neex di xaabaabal ak lu ne nga wax ko داوود توك نان حسان ديما واي واي ديل ما مانا نوا غور واي نا نيه ديدت دنج كو دان سونغ ديكو دينيغري دي ياق داوام بي مونان حسان اهجومهم وروح القدس معك دون وخ حسان نان كو نانغا دال سي سين كو ndax dañoo am seen i waxkat ñuy tëral seen i way yu neex di ñëw di dal ci kaw lislaam kon yow itam song défendre diine ji défendre ma loolu la xastaan daal jëfandikoo ci ay way ci poésie waaye daawul nekk toog naan ko yow yaa defoon nangam yaa doxloo woon garab ga yaa waxloo woon nangam ba yaa defoon lii yaa defoon laa yow la nangam yow la nangam yow la nangam déedéet benn bis kenn dafa ñëw ci moom ne ko anta sayiduna wabnu sayidina mu ne ko qulu bi qawlikum aw bi baadi qawlikum wala yastajriyannakum alcheytan nit ñëw na ci moom rek naan ko yow yaay suñu sang yaay suñu doomu sang mu ne ko wax leen lu ngeen xam te bàyyi wax leen lu ngeen xam te bàyyi mooy tundiku leen seytaane di leen tàbbal ci réer man nekkuma lu dul jaamu yàlla akub ndawam kon yem leen ci loolu loolu dong la alayhi salaatu wasalaam kon lii moo nekkoon doxalinam nii la wàccee woon boppam alayhi salaatu wasalaam lii nii ñuy wax coow fi naan dañuy màggal juddoom li njëkk am mooy bis boobu ñuy wax naan ci la juddu ndax loolu mooy li wér ci siira am déet loolu foofu la coow li njëkk nekk ute bu rëy moo ci nekk bu nit ki cahaadoon sax ba ni bis boobu la jot jëm mi di ko feete at mu jot ci anniversaire ba di ko layelee bi muy woor wooruk naafi la bisu altine ak bisu alxemes ñu laaj ko ci altine bi mu ne altine bi ci laa juddu ci la ma yàlla yabal dama bëgg di ko woor ñi di wax ne ah kon bisu juddoom daan na ko màggal subhanallah loolu la def daan woor bisu altine tudd sabab yi tax mu ko daan woor bokk na ci bis la boo moom la ko yàlla tànnaloon altine la de waxuma la nangam ci nangam xam nga loolu ute na nga ni la bis nangam ci weer sangam ci at sangam waxul loolu loolu mooy anniversaire luy dellu si at ak at mais moom benn bis ci fi ci semaine bi la taamu woon daan ko wóor ci semaine bi te loolu ca la yemoon nee nga da nga kaa bëgg da nga ko ci lim def bu dee jàpp nga ni njub ak mbaax mi ngi ci li mu jàngale ba nga xam xadis boobu ba tax nga ciy sukkandiku lu tax yemaloo ci doyloo ko comme ni ko saxaaba yi doyloo woon ndax moom alayhi salaatu koo gën a xër ndax saxaaba yi da leen a gën a xër mbir mi yëpp nekkul foofu mbir mi mooy fi problème bi nekk te ñu waxoon ko sànq ci commencement bi nit day ñëw sos ci lislaam ay sosam te cosaanu màggal lii ñuy wax muy euh, gàmm mi ngi jóge ci faatimiyuun yi nga xam ne ay ubaydiyuun lañ leen di tuddee dëgg-dëgg ay ubaydiyuun lañ yi nga xamante ne ñoom ñoo fondé Caire Égypte Caire ngeen dégg ville boobu ñu dee Caire muy Alqahira ñooñu ñoo ko sos am impact bu rëy bu ñu amoon fii ci Afrique du Nord ci lu tuddee le Maghreb ñooñu seen cosaan ci rafida yi la muy benn branche la ci chiite yi moo tax bu ngeen di dégg léeg-léeg benn waay fii ci dëkk bi du ma tudd turam mu naan tasawuf bi nekk Sénégal cosaanam ci chiisme la loolu lay junju bari na yenn pratique yoo xam ne dugg na fi foofu la jóge ci ñooñu la jóge ñooñu lu ñu yàq ci lislaam bu ngeen jàngee seen histoire di ngeen ko gis ay rafida yu bon a bon lañ woon ci wàllu pas-pas ak seen doxalin ñooñu ñoo jëloon xajarul aswad bi yóbbu ko ci nappe ko xajarul aswad bi nekk muy pierre noire bi nekk ci booru kaaba daan bunnu xatal ak fitnaal jullit yi jël bi nga xamante ni bi croisade yi nanguwaatoon nañ ko Jérusalem di al masjidul aqsa en grande partie ci ñoom ñooy seen sabab la woon ñooñu ñoo njëkkoon commencé di def loolu di ko célébrer loolu dem ba tas jullit ñi di di leen ci fekk si di ko def léegi nag ay nit dañuy jël loolu jaarale ko ci turu seen kilifa goo xam ne da ko daan def ñu dem ba jël ko jagleel ko ko mu rëy ci ñoom ni kilifa googu rëyee ci ñoom ba koo tuddee ci loolu dañ jàpp ne da nga offensé kilifa gi duñ jàpp ne benn masala ak benn jëf ci l'islam yow ngay jàngat di lijjanti mën a nekkam ak ñàkk mën a nekkam duñ ko yemale foofu mais dañ koy personnaliser dañuy jàpp ne diw moomu moom ngay song alors que nit ku baax sax koo jàpp ne ku baax la di boroom xam-xam mën naa juum ci masala nga ngàntal ko ci njuumte la mais yow mii di dund ak man tey jii yow yaa war a lijjanti xam ba xam lii war nga ko cee topp wala waroo ko cee topp ndax yow boo ko xamee ba noppi topp ko ci amatoo ngànt sa kanamu borom foofu la wax ji nekk léegi loolu kon moom moo indi mer gi ngay dégg ak coow li ngay ndax dañ koo jël def ko seen identité boo xam ne dañ jàpp ne boo ci waxee ñoom nga attaqué leneen li indiwaat naqari ci wax bi ci mbir mi mooy da ngay def li ñu tuddee al intiqad summa al istidlal mooy da ngay gis ñi nekk ci yooyu bañ koy gëm di ko topp lijjanti wuñ woon fan la tegtalam tegu ci lislaam luy dalilam luy tegtalam lijjanti wuñ ndax gëm nañ ña nga xam ne ñoo ko jaa ñoo leen ko jàngal jox leen ko ngëm gu toll ne ci diine jox nañ ñooñu maqaamawu lu leen ñooñu wax ci lislaam dañ koy jël lu leen ñooñu wax ci fois waxi yàlla ji nga xam ne alquran la jàng wax jooju moo gën jàng alquran soixante dix mille fois ñu jël ko gëm ko di ko layal bay wax naan kam min taalin lil qurani wal quranu yalanu bari na kuy jàng alquran alquran di ko rëbb kon alquran jàng ko lépp du yiw ndax am na ñu nekk ci ñoom yiw am na ñu nekkul ci ñoom yiw te jàng jullit ci yonente bi alayhi salaam yiw rek la mu nekk wax joo xam ne wérul kam min taalim quran wal quran yaraan du hadis wax la bu ñuy solo di ko jële ci anas dafa am dàq bu ci nekk ñaareel bi mooy li ko taxoon di wax mooy ci côté sens bi waaye ci côté jaamu yàlla bi mooy nit ki day nekk di def bàkkaar boo xam ne alquran am koy rëbb muy jàng alquran alquran di rëbb la muy def ak melokaanam boobu te taxul mu bàyyi ko loolu la ci namm mais pas nit ki ñëw di jàng alquran di def lu baax loolu jëmmi alquran ji di ko rëbb ci kaw njàng ji muy jàng alquran loolu wérul alquran mënoo mënoo fent saw ñaan ak julli gone da nga koy julli ci yonente bi alayhi salaam ak foo ko mën a jëlee loo ko mën a waxal ba jël ko di ko gam-gam leeg waxi yàlla ñu ne dégg nga ni soixante dix mille fois ay nit am fanatisme bu ñu fanat nekk ay fanatique ci yow ba tax li wax jooju di rëy rëy yépp ñu gëm ko di bu ko nit di critiquer sax ñu koy bëgg a yéefaral di ko bëgg a génne ci l'islam fanatisme bu mel noonu moo tax masaayil yu mel noonu mënoo cee wax mooy dañ koo gëm ndax ngëm gi ñu gëm ñi ko wax ak ñi mu jaar ci ñoom ba mu àgg ci seeni xol foo xam ni mënatoo leen indil ci argument ak lu mu raisonnable raisonnable lu tax ñu mën a accepter li ngay wax ne dëgg la ni fi'lan lii nekkul lu ñu wax di def ci l'islam aw sos la amul fenn fu mu tegu duñ ko na bis bu ne lépp lu ñu gis rek lu ñu mën a laxasu ñu ngi cee laxasu ndax day gëm ba ngëm gi sori ci moom muy wër ay adilla di wër ay tegtal هذا والعلم عند الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من نان دوي لولو كون داك جولي بي ميغي جيغي يو يا فن سا بوب دم لاج ما لاج بو خاوا كومبليكي توت موتاخ يالنا يالا دولي توفيق بارك الله فيكم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

Euh, loolu nga xamante ni moom lay wax ci collectif ak li nga xam ne mooy cancer du sein loolu la ñu am lu ñu jàllee ci information di leen jaajëfal ci di jaajëfalaat ustaas bu baax a baax di ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla loolu euh, ñu mooy diine islam li nga xam ne moom lay leen di doon alayhi salaatu salaam jàngale bàyyi ko ñëpp koo xam ne rek liggéey bi ñu sa loxo tàbbi na moo xam mu sori wala mu jege السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي نحن كونفرنس بقول لك إن شاء الله تعالى جل لنا بين إنفورماسيون رك أستاذ مورك في دون ديف كونفرنس في ليجني في بين دار أبو حامد تجي لك أبي مدرد دار الكوثر يبغي شيء بقي دون لايت أستاذ إقبال إلمنتر لاند أم دارا ليجي أم دارا من تدو دارا من تدو الكوثر Euh, informa information yi ngeen di gis noonu daara moderne Kawsar xamante ni ci kilifteef Oustaz Mor Kébé la ne mu nekk daara boo xamante ni centre franco coranique lay nekk euh, mu bëgg a nekk aussi daara daara d'excellence lay doon yar ni dinañ xam seen diine dinañ jàng alquran dinañ am yaru diine mais dinañ leen tàggat ci wàllu àdduna ba ñu mën a jëriñ seen bopp jëriñ seen réew defe naa ne loolu initiative bu am solo la mu am nag ñaari option option bu njëkk bi mooy option A xale bi day jàng alxuraan ba mokkal doog a dugg ci yeneen njàng yi wala option B xale bi day jàngale alxuraan boole ko ak tamit étude académique yi euh, loolu lépp ku ci bëgg am loo xamante ni lu la leer la mën nga woote ki 33 888 68 29 wala nga woote